Bijou euh, mu nekk ñaari CV yoo xam ne dañ ko tànnaat on démarre avec le CV de Thiané Diaw euh, tonton mag bu mën nañ am CV yi euh, ñu démarrer avec celui de Thiané Diaw Thiané Diaw nag am na son dernier diplôme et attestation donc euh, donc en 2015 une attestation sur l'entrepreneuriat la gestion de stock la gestion financière investissement le service à la clientèle et les techniques de vente 2013 un brevet de technicien supérieur un BTS Euh, en commerce international au centre de formation professionnelle et commerciale. Concernant ses expériences professionnelles, Euh, octobre 2013, stage à l'agence de la LONAS de Pikine au service euh, commercial et de comptabilité. Décembre 2014, janvier 2015, stage de formation organisé par l'ANPEJ et le Tigo à l'agence de Tigo de Liberté 6. Pour les domaines de compétences, euh, banque, assurance, euh, économie, euh, organisation des entreprises, secrétariat, marketing, comptabilité analytique, comptabilité générale, droit commercial, mathématiques financières, statistiques, techniques de communication, caisse, logistique et négociation. Pour la comptabilité, contacter sera par mail à tchatcha1989@gmail.com. Nous avons également le CV de Manga Lauriane, donc Manga Lauriane qui a eu euh, son dernier diplôme 2015-2016, une licence 2 en banque, finance, assurance à l'Institut communautaire africain euh, de gestion et d'ingénierie. Concernant ses expériences professionnelles, elle en a euh, par contre, pour sa, la vie à la paroisse Sainte-Thérèse de et positive aux situations aux heures supplémentaires. Euh, créative, Lauriane est apte aux déplacements, passionnée de musique, observatrice, s'adapte et dynamique. Alors pour la contacter sera par mail, toujours à magasisteuse.hotmail.fr voilà euh, bijou ñaari CV yi la ñu amoon. Mhm. Euh, jàllale ko espérant que seeni borom euh, dinañ am liggéey. le plus rapidement possible parce que euh, la première personne am na expérience dans son domaine euh, l'autre xanaa ñu woo ko pour des stages euh, c'est pas c'est toujours pas mal. d'accord Kya da nga waxoon da ngay waxtaanee tamit comportement dans l'entreprise. alors comportement dans l'entreprise. ñu nit war a comporter exactement surtout pour s'épanouir du ay règles yoo xamante ne day nekk ay règles yu yoo xamante ne nit ki bu fa nekkee day mel ni ku nekk ci prison kuy xëy entreprise di fa liggéey da nga war a épanouir boobu moo lay nga mën a performant ci sa liggéey. Mm, productif ah, aussi. exactement parce que xam nañ également il ne suffit pas que de euh, solides compétences euh, pour être bien en entreprise il faut aussi savoir s'intégrer dans une équipe. et connaître def na sañse bu baax. la culture rafet na torop moo nar a ñëw tout pour waxtaan ak ñun ci album mu eggalil comportement bi. d'accord alors euh, li nga xamante ne moom la ñuy euh, euh, mooy ñi nga xamante ne dañ naan aujourd'hui il faut faire attention aux critiques maladroites et aux comportements très personnels qui peuvent jouer en votre défaveur yenn saa yi nga gis nit daal di ko critiquer critique boo xamante ne yow leer na la lii du ci wàllum liggéey bi wala même bu dee ci wàllum liggéey bi defoo ci forme yi war day indi yenn frustration yi après nee comportement très personnel yenn saa yi nga am yenn comportement yoo xamante ne jubloo ko lu li gën li li ni mu gënee ci yow euh, xooloo li nga xamante ne mooy intérêt entreprise bi nga teg ko ci ci kanam loolu mën na jouer en ta défaveur et puis euh, nga war a fàttali ni patron bi euh, day rester sa patron nekkul sa collègue donc ak avec qui ngay waxtaanal di ko raconter ses petits problèmes c'est pas son problème moom li nga xam ne moom la soxla mooy say compétences et puis il faut savoir maintenir une distance acceptable avec votre c'est important donc ayez en tête que c'est lui qui vous a embauché moom moo la euh, moom moo la jël et puis euh, nga gérer sa évolution de carrière tout en effectuant ce qu'on appelle euh, des évaluations de vos compétences c'est très important munoo nekk ci bërëb yor benn poste au fur et à mesure ngay dem war nga mettre en en cause sa compétence jéem a xool naka ngay améliorer woo ba fi nga xamante ne moom nga nekk nga remplir say responsabilités au-delà de ça nga am carrière fenn mën nañ la yëkkati teg la fu gën foofu. Mm-hmm. et puis euh, wax nañ également il faut être euh, donc euh, pour booy door a jël poste également wax nañ la première impression que vous donnerez est impression capitale bu fekkee yaa ngi door a commencer liggéey jël poste ci benn kii ak première impression booy joxe da ngay gis. moom la ñuy sax. da ngay yegsi ci benn entreprise rek ñu euh, ubbeeku yi ba mel ni man koo romb tàppanteeg moom waaye yow noo def man de maa ngi door a ñëw fii xam nga am na yenn comportement yoo xam ne c'est pas professionnel am na yenn am war a mel il faut être c'est vrai qu'il faut être détendu souriant aimable et euh, ñoo xam dañuy ñëw fenn fas seen kanam ba kenn du leen ñeme mm-hmm. euh, il faut aussi savoir crypter décrypter les codes et les rites qui régissent l'entreprise entreprise bu nekk am na nu muy doxee yow mënoo ñëw jël sa mode de fonctionnement fa nga jógee di ko bëgg a intégrer ba di ko forcer da ngay xool entreprise bi doxee nga duggaale ci biir nekk bokk ci muul bi et puis il faut savoir aller vers les autres donc il faut pas oublier les euh, mots magiques il y a des mots de des bonjour au revoir xam nga ñu ci bëri damay dugg fenn yenn saay merci s'il vous plaît am na ñoo xam ne dafa bokkatul seen vocabulaire te yar euh, moom laay wax yar dafa am solo même ci entreprise boo nekk boo bëggee ñu respecté la Euh, nga bañ a def également li ñuy tuddee le racisme social euh, daal di mën a euh, beddi yenn nit yi. xeeb ñenn ñi voilà jël sa patron fonk ko boo rombee ki nga xam ne sa collègue collaborateur la sa collègue la en même temps donte postam demeewul noonu sax planton wala gardien bi sa boo ko rombee da ko war a jox cër da ko war a nuyu da ko war a respecter parce que ci entreprise bi la bokk. Mm. boo xoolee contrat am la en tête sa sa contrat mooy nekk en tête parce que c'est un employé donc il faut respecter donc boo fekkee nit ñi toog. Euh, mën nga laajte ndax mën naa la jàppale ci lii mais ne pas être aussi envahissant mooy di euh, jàppale nit ki. ba bëgg nangu liggéeyu jàmbur voilà ba bëgg nangu liggéeyu jàmbur loolu aussi euh, baaxul wax nañ ko sànq le respect de la hiérarchie niveau hiérarchie nag dafa bari yenn saa yi tey jii ba Ndour directeur de programmes am na koo xam ne moo nekk avant moom tey ku soxla dara mën nga jiitu ci kooku bala ngay yegg ci moom sinon bu dee kooku dafa nekk fii nekk digganteem ak ñun par exemple mën nga frustré par exemple kooku. ndax risque ndax postam mooy yéen mu coach leen avant nga yegg ci moom donc et puis et éviter de faire du chantage à votre supérieur ah bëri na ci ñi nga xamante ne euh, yenn saa yi bu fekkee dañu mën li ñu mën mën nañ def benn chantage mën na nekk affectif wala d'une autre manière euh, il faut savoir euh, négocier sereinement en avançant toujours des arguments concrets donc bu fekkee da nga bëgg dara mën da nga koy teg ci yoon lii laa bëgg nga teg ko ci yoon pour am li nga bëgg mais bul ko def ci chantage et puis se mettre en avant sachez vous mettre en avant nit mën nga def recherche d'information tey mën nga dem toog xool fenn dara loo xamante ne ma ngay doxal foofu euh, ñëw fii ne ah man de lii gis naa ko day dox fële donc mën nañ ko intégrer fii mu dox donc participation boobu noonu employé daf ko war a am et puis rester professionnel ah être professionnel il faut être ponctuel c'est important la ponctualité tonton Garmi <laughs> efficace efficacité Euh, réactif il faut être réactif. donc euh, toujours euh, dafa am solo boo nekkee ci benn ci ci liggéey il faut savoir te surpasser nga nga créatif nga bañ a yem rek ci liñ la dénk. aujourd'hui créer par exemple damay jël exemple ci yeewu leen yemuñu ci rek animation kii bi yenn saa yi ñu boole ci yoo xam ne ñoo koy créer suñu biir daal ne lii buñ ko defee dina dox donc participation boobu noonu dafa am solo ci kii bi et puis énergétique et productif. ndax bu ñu la jëlee di la fay euh, weer bu dee ne la sa tâche jox la sa fiche de poste nga xam ne sa tâche li ak lii ak lii la benn boo ci deful rek c'est un manquement donc sa productivité mën na ci atteindre donc mu wàññeeku et puis ne promettez pas non plus l'impossible soyez réaliste analysez vos compétences ainsi que les délais à tenir pour réaliser la mission confiée euh, bu ñu la dénk liggéey rek nga ne mën naa ko def ci ñaari fan alors ko liggéey bi day jël une semaine nit ku nekk da ngay analyser say compétence xam li nga mën nga diggee ko ndax doo diggee loo xamante ne mënuloo ko exactement mën na nekk en ta défaveur voilà bijou ay ponk yooyu daal moo gën a am solo ci li ñu jàpp ci comportement wu nit en entreprise. man du ma yem ci loolu de da ko pare léegi na dañuy jaar ci rubrique bu important. <laughs> sans ah, transition. en ah, ah, am na benn point bu important bu ma bëggoon souligner. muy esprit d'équipe. Mhm. on dit optez pour l'esprit d'équipe en partageant vos vos informations et vos fichiers si ces derniers ne sont pas confidentiels l'entraide soude l'équipe et le service auquel vous êtes rattaché n'en sera plus que euh, productif mënoo nekk en entreprise également nga nekk fa responsable nga jàpp ne yow rek yaa xam. Euh, partage d'information boobu noonu euh, tey mën ngeen toog en réunion fa lañu fa lañu américains yi euh, pour man kiiwee rawee liñ naan séance de brainstorming yenn saa yi mën ngeen nekk di liggéey ci dara gardien bi romb mu am ci avis avis boobu noonu yenn saa yi di nga toog sa kër jaaxle ci benn kii nga toog di waxtaan ak sa doom mais mu gindi la ba li nga bëgg a trouver nga trouver ko pour dire que personne ne détient le monopole du savoir yàlla rek ko mën kenn matul donc le fait de de de de de laaj nit seen avis ba pare tenir ko en compte donte doo ko jël sax yenn saa mais nga tenir ko en compte boole kook sax xam-xam yow daal di loolu mën na jëmale entreprise kanam. xel lu doy sax esprit d'équipe c'est important dañuy wax que boo jëlee benn bant bale boo ko lemee day damm boo leen takkalee ñoom ñëpp boo leen di damm doo ko mën. exactement donc je pense que esprit d'équipe c'est très important dans l'entreprise mais li booba di ñëw waxtaanee aussi je pense que. mais mais mais Bisou Ndiaye balaa ngaa ñëw ci li booba di indi. Mhm. moom dafa wax lu am solo loo xam ne lii lu ci nekk war nañ ko faram-fàccee. Mhm. waxtaane ko. Mhm. parce que yokk nañu. xelal nañu digal nañu indil nañu tamit yi nga xam ne moo baax ak yi nga xam ne tamit dëgg-dëgg baaxul am tamit yoo xam ne tamit daf ko def ci biir mooy esprit d'équipe bi nga xam ne tamit tubaarkàlla moom lañu moom la war a doxi wax ne tamit patron bi tam war a demee xel ko warul fenn warul defe ne moom moom nit ñi lu ko neex rek moom lay def wala mu sax mu tëdd këram jékki-jékki rek daal di gis ne rek defale ma ko nii te xamul lan la def ci journée bi ba loolu mën a taxaw. Mm-hmm. yooyu yëpp kii kii li mu war a moom day am solo la lu am solo la wax de. dafa généraliser entreprise yëpp. waaw très bien très bien. xam nga yéen loolu moom am na ci loo xam ne employé yi ñoo ko moom. <laughs> am na ci loo xam ne patron yi ñoom moom. ku ci nekk nag na seet li nga moom gannaaw nga jël ko te jariñoo ko dina nekk lu am solo loolu laa yokk ci li xam ne moom la. man nag li ma wax mun naa joxe après lien bi pour yéen ñi nga xamante ne da ngeen ko soxla. Euh, pour ngeen liiraat ko. yow wax ak kenn ko non je c'est ma rubrique je je m'adresse euh, aux gens qui sont en entreprise. képp ku nekk en entreprise tey am na benn comportement boo war a am. alors euh, li ma wax nag comme je dis du sama xam-xam. mais lu voilà lu spécialiste bind la ak lu ma def ay recherche daal di ko génne ci kanam dinaa joxe lien bi pour yéen ñi nga xamante ne da ko soxla kenn du ma dugal intéressant parce que surtout ndaw yi doo ñafe am liggéey ba pare ay affaire comportement noo war a comporté woo ci entreprise bi c'est que parfois déjà wutum liggéey rek coono la dafa metti euh, nga ñëw ba am li nga am ba pare après nga koy comme ni ñu koy waxee caaxaane quoi de ce fait euh, boo amee liggéey bi dafa am yenn comportement yoo xamante ne da nga koy am mais je vois que ni tamit yenn comportement yi c'est à la base ca kër ga la. li ngay comporté ci kër gi image boobu rek ngay def ndax yoo wax na lu am solo parce que li ngay boo ñëwee ci entreprise li ngay njëkk a joxe comme image loolu lañ lay jàppee. loolu lañ lay jàppee parce que xamuñu la en fait. voilà xamuñu la li ngay njëkk a ñëw sa premier jour yi ngay jaar yi ngay yi ngay yi ngay yi ngay def ci entreprise bi image boobu lañ lañ lay jox bu fekkee da nga fa war a war a fulla comme ni ñu koy waxee fulla ak fayda nekk liggéeykat image boobu la ñu lay jàppee même bu fekkee parfois suba nga def erreur nañ accepter ne yow meloo nii parce que nii la d'habitude nii ngay nii ngay nii ngay doxale mais nga ñëw fa wane fa noo xamante ni vraiment comme ni ñu koy wax ñàkk fayda la wala ku fonkul bu baax waaw ñàkk farlu ku wala ku fonkul bu baax liggéeyam tamit image boobu lañ lay lañ lañ lañ lay mm. je pense que c'est c'est important parce que entreprise tamit euh, ku ci nekk am na noo war a comporté woo pour ba kenn bañ la yëpp comme ni nga koy waxee euh, nangu liggéey ndaxte euh, je pense liggéey actuellement boo dee xool CV yi ñu fiy jàllale rek di nga xamante ne chômage bi même bu fekkee mi ngi wàññeeku ñi bëgg liggéey bëri na donc da ngay gis voilà da gis ku rey boppam ba am liggéey bi mais après l'impression que amul sax envie toog def li muy def bàyyeeku genre voilà c'est tranquille maintenant c'est acquis am naa liggéey c'est bon dootuñu def effort monde bi ñu nekk nii da ngay toujours da ngay accéder da

fa mën a toog boo ko jàppee di nga fonk fi nga toog. jóg job bi intéressant na kii di la